mbokk yi déglu leen bés bu mag la 13 aut ci arène national kan moo woote ñu ne le plus jeune promoteur de l'arène l'enfant de la Sénégambia jamaïcain la ñu koy woowee xale bi nga xam ne heure bu ñëwee arène national rek def ko dóom kan ak kan la jamaïcain boole ñu ne Baye Mandione le fou de Thiaro yi xale bi nga xamante ne nii bu juggee ci làmb ñu xam ne ndaanaan bi yegsi na moo war a jàkkaarloo ak kan ñu ne Bébé Diène le messi de l'arène xale bi toj lutte sans frappe dugg ci lutte avec frappe def ci lu kenn mësul def ñoom ñaar la jamaïcain boole daal di jël combat boobu nag daal di koy jagleel Mansour Ba opérateur économique PDG Jambar Production et président Santian l'homme social des Parcelles Assainies waaye mbokk yi jamaykee du xam ngeen ko ndaanaan la yemul foofu kan la dem jële ji ñu ni tas yaakaar daal di koy boole nag ak fàllu clando loolu mooy komba spécial bi ñu daal di koy tuddee ti jan Ba le marabout international di la faj ba noppi di la ñaanal tey jëm production yamul foofu mbokk yi du xam ngeen booy plateau ndaanaan bi dina fa jàkkaarloo ak bu Siteu borom géejewaay xale bi saf xorom lool te mën a bëri drapeau sëñ Bada Kéemaan borom jàkkaarloo fa ak Douglas numéro 2 Boy Jaxaaw jàkkaarloo fa ak Yaxi Bambilor Caatu Moussa Jum jàkkaarloo fa ak James waaye du xam ngeen bébé waali dina fa jàkkaarloo ak xale bu saf xorom bi lool te mën a bëre ñammi-ñammi Caatu Kolobaan jàkkaarloo fa ak Liiru bu Ngor Forza numéro 2 mbokk ak Papis Junior foofu la ñuy jàkkaarloo waaye bu leen fàtte benn yoon ni Kona Mbay dina fa jàkkaarloo ak Tidiane Fay numéro 2 yoon du xam ngeen Tafisco business commerçant ci fii la ci bis bi waaye Xelcom automobile chez Baye Modou Fall itamit ci sponsor yi la ñu bokk ETDR établissement Touba Darou maa ñi ngi ci biir bés bi ciy jamaïcain ak structure am bii promoteur yu mag yi am ngeen problème daf leen fiy ndaa ndaanaan la déggil ma moom combat baa ngi noonu war a dox ci diggante Talfa eh, déedéet Talfa weesu na Talfa dafa des sama xol moom mbaytin rek ci sama xel ndax la ñu bëre dafa rëy moomoo waaye beneen mbaytinay bëre moomoo beneen mbaytinay bëre waalo la jógee di mbaytin siñoor ñu koy wax Orka waaye kenn mënu ko tijji mbaytin ak Tony oh Tony Tony vraiment athlète la Tony ak Mbaye Tine arbitre baa ngi wax ak ñoom di Malick Ngom Malick Ngom moo koy arbitré lay def ni moom moo lay def nii Malick Ngom moo koy arbitré dafa faal baara Couture doomu nday Pape Seck Touba Couture sama tailleur yi ñoo dàq ñëw Sénégal ak Cheikh Top arbitre sifflé diggante mbaytin Tine ak Tony Junior Tony fu mu jëm bul topp ñooñu boo bul génn foo génn kër mbir yow la ñuy déglu mbaytin Tine géej waaye di ko déglu ñaari mbër yaa ngi leewaatoo diggante Mbaye Tine Orka ak Tony Junior Tony ngi ñaan ma ngay bari ki démb la jógee ne Togo xaw ma xaw dem fa def fa jaloore seen diggante ak Niger final bi mu am fa médaille d'or moom Tony Junior taf na ko mi ngi dox ci kawam ñaari pied droit la mbaytin ak Tony Mbaye a ngi arrière Malick nee ko taxawal nga bëre Malick may ko round d'observation bi rek. Mbaye Tine loolu lay bëri dafa bëgg adversaire am jóg mu jëlee ak moom day takk moom Mbaye waaye waa Géeja waay sànq da ngeen na la nga yóbbu Malick nee ko taxawal yow Mbaye Tine moog la toone mbay toone mbay moomoo toone mbay gis nga fañ déparé ak fañu taxaw Malick Ngom nee na ko taxawal nga bëre gis nga fa ñu départ avertissement verbal avertissement verbal nee na ko taxawal nga bëre sifflé waat na moom Malick Ngom Tony Mbaye Junior Tony ak Junior mbay ñoom ñaari ngi leewaatoo gis naa fi ñoom dem Thierry gis naa fi l'an 2000 kuy amateur nag làmb ji waroon nga ko mën a seetaan si bu la ko sa jot mayee bu dee làmb ju neex rek nga bëgg. Mbaye Tine nga ba léegi digganteem ak Tony la day jël avertissement day yaakaar naa ko de waawaw jox nañ ko avertissement moom Mbaye Tine mu ngay wër-wër loo ba léegi génn na jaay jël day jël deuxième avertissement eh nee na jeex na nee na jeex na nee na jeex na ñaari avertissement la bëggoon nee na làmb ji jeex na. waaye nag mbay bul yàq sa xaalis mbayti nag tooni tooni ba muy mujj bëre géej waaye la mujjee woon bëreeg bébé guy gu tóor ko mu daanu fii ci arène nationale. bokk na ci xale yi nga xamante ne jame kee ñoo la njëkk a tëgg ci làmb boobaak léegi mu ngi bëree amagul defet door na ko moom mbaytin daw na jël ko jël na ko sol na ko benn loxo ba moom Tony Tony nga koy mbay a ngi bañ Tony sëq na ci ngemb la Tony jàpp na ba doyal di ko songale laa ilaha illallah mbay jàpp nañ la mbay mbay jàpp nañ la mbay bañ na mbay góor teel la goy daan na ko weñ na ko mu tëdd ah non non non différence am na ci différence am na weñ la ko def mu tëdd da ko weñ mu jaaxaan da ko jàppale weñ ko mu jaaxaan ah non tolloowuñ vraiment tolloowuñ Mbaye Tine tooni daan na la ay waay defet a metti yàlla ñu yàlla musal ci defet ko suma merna na ko suma mer na ko suma mer na ko suma mer na ko suma mer na oh coach sa mer na ñibbi na mer na ñibbi na xoolal ooy waay Ron mer Ron ñibbi Ron am na lu ko metti ndeysaan ndam la ko bëggaloon rek moomoo waaye moom mi bëri ndam la bëggoon lii mooy sport déedéet kay kaay kaay ndax mel ni yaa ci des. xaay na. yéen a ci des. Alaaji Fàllu si daanu. Naaro am na doole de. billaay day daanu. Naaro noppi na. Naaro daanu lagros. dañoo ragal fu ñu jëm. eh téléphone na de mer na ba. ay morom lañ. bañ na di taamu na ñëw ñu bëree. liiru maa da nga am métti sa rakk dañ koo daan. waaw sant yàlla rek làmb la sant yàlla rek làmb la waaw bisu ñàkk du bisu am sant yàlla la rek sant yàlla rek yàlla baax na ok yàlla baax na. waaw ma ni sama sama waa ji laa présenté quoi maam Sambo. lii maye fan la Sadio Mané. maye Sadio Mané la waaw. kañ la am Sénégal maye. ah. kañ la am fi. waaw Sadio Mané ñun moom la ñuy topp. waa Kër Mbir nuñ ñëwee man gisuma leen niñ doon bare. Euh, boo gisee xoolal lee li ko dagee yëpp waa Kër Mbir la lamb ji nin ko jëlee moo waral lii nii dafa jógee compétition sonn mais bañ a yàq lamb moo waral tey mu bëre ji John dafa bokk si lamb Mbaye Ndiaye fa woon la Lion bu bu nu fii tey jii nii ba dañ koy sante yàlla mais Tony dafa bëggoon dafa bëgg a jël li ay maamam wàccoon si làmb moom la ñuy ñëw pour jël si ko. jërëjëf kontaan ci yow. monsieur le maire. monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. loolu fi ñu ngi lay ziar. monsieur le maire da si lu def nga lu raar ci maire yi open press rek la ñuy ñëw jënd ñaari bolok wala ñetti bolok toog yow nga déplacé wu loolu ñu ngi la ciy félicité waaye ndax sa xel dal na ci sa poulet. waaw ndaxte boo amee lu kenn amul da nga ñun. kenn ku nekk am nga sab seur ñii am nañ Sadio Mané ñii am nañ Messi mais ñun Tony Junior mooy suñu lépp si sport waaw ndax ay Tony Junior mooy suñu lépp si sport daal zone des Niayes kenn lan am muy Tony Junior instant yi nii si compétition la jógee démb barki démb la ñëw démb la noppalu mais bañ a yàq ak doxal làmb moo tax ñu ñëw si tey pour mën a def victoire bi pour yóbbu ko zone des Niayes ndax zone des Niayes dafa bokk si làmb jërëjëf incha allah ah mbokk yi déglu leen bés bu mag le 13 aut ci arène national kan moo wootee ñu ne le plus jeune promoteur de l'arène l'enfant de la Sénégambia jamaïcain la ñu koy woowee xale bi nga xam ne heure bu ñëwee arène national rek def ko dóom kan ak kan la jamaïcain boole ñu ne ma Mandione le fou de Thiaro yi xale bi nga xamante ne nii bu duggee ci làmb ñu xam ne ndaanaan bi yegsi na moo war a jàkkaarloo ak kan ñu ne Bébé Diène le messi de xale bi toj lutte sans frappe dugg ci lutte avec def ci lu kenn mësul def ñoom ñaar la jamaïcain boole daal di jël combat boobu nag daal di koy jagleel Mansour Ba Ba opérateur économique PDG Jambar production et président Santian l'homme social des Parcelles Assainies waaye mbokk yi kee du xam ngeen ko ndaanaan la yemul foofu kan la dem jële ji ñu ni tas yaakaar daal di koy boole nag ak fàllu clando loolu mooy komba spécial bi ñu daal du koy tuddee ti jan Ba le marabu international di la faj ba noppi di la ñaanal tey jëm production yemul foofu mbokk yi du xam ngeen booy plateau ndaanaan bi dina fa jàkkaarloo ak bu Siteu borom géejewaay xale bi saf xorom lool te mën a bëri drapeau sëñ Bada Kéemaan borom jinne Junior jàkkaarloo fa ak Douglas numéro 2 Boy Jaxaw jàkkaarloo fa ak Yaxi Bambilor Caatu Moussa Dioum jàkkaarloo fa ak James waaye du xam ngeen bébé waali dina fa jàkkaarloo ak xale bu saf xorom bi lool te mën a bëre ñammi-ñammi Caatu Kolobaan jàkkaarloo fa ak Liiru bu Ngor Forza numéro 2 mbokk yi ak Papis Junior foofu la ñuy jàkkaarloo waaye bu leen fàtte benn yoon ni Kona Mbay dina fa jàkkaarloo ak Tidiane Faye numéro 2 cey jëm production du ñu wéet seen bis benn yoon du xam ngeen Tafisco business commerçant import export tissu bu la jaaxal rek am nañu ko jesner ba jàppale ci bis bi waaye Xelcom automobile chez Baye Modou Fall itamit ci sponsor yi la ñu bokk ETDR établissement Touba Darou Rahman ñi ngi ci biir bés bi ciy jamaïcain ak structure am bii promoteur yu mag yi am ngeen problème daf leen fiy jëlee ndaanaan la